mbokk yi ba tey ñu ngi toog ak ki nga xamante ne mooy Kogna numéro 2 kenn du ko présenté ci réew mi mu nekk xale boo xamante ne champion wala nekk ci làmb ji di bay waaram euh, sortie bi passé arène nationale daf ko ñàkk waaye teewul loolu yëpp jàngat la ci moom tey mu jëlaat beneen combat Kogna maa ngi lay nuyu. ngi fay ginnaaw ma sant yàlla julli ci leen mi sant sama ñaari waajur maa ngi nuyu sama waa dëkk di nuyu ñëpp xam nga di nuyu waa Sambaay sama dëkk di nuyu waa Newraan di nuyu ñëpp waaw di nuyu waa Colobane bu baax a baax a baax maa ngi leen di bu baax Hmm. sa diggante ak Ronaldinho lan moo tax nga jël Ronaldinho ak ci combat bi nga jóge. non Ronaldinho làmb moo ñu boole tamit te sama grand la yaa may dégg saa bi ñu ne xale lañ am nga dañoo dañoo def loo xam ne war nañoo bëri sax ku Ronaldinho te suñu bët teguñu ko sax ci Ronaldinho ñu ngi ko teg feneen ku moom quoi. mu doon champion boo xamante ne macha allah mën na bëre lool moom Ronaldinho mën na xeex bu bëree da ngay xam ne kii ndaanaanu bërekat la euh, yow it kenn du la présenté ci làmb ci sa xarañte sa mën a bëre macha allah lan combat boobu jàpp nga ne dina nekk combat boo xamante ni euh, yéen ñaar ku ci nekk di nga gis bëre bi nga xamante ni mu ngi ci moroom. waaw man moom wax dëgg xale la man nee naa la damay sax su ma bëre ku ma xamul ma yaakaar naa sama six combats yëpp ñu ma bëri xaw ma ci kenn quoi. yee Ronaldinho xam naa ko ci làmb tamit bokk naa sama mag journée xam nga bi ñu ñibbi maa ne sama booy kii dinaa bëreeg moom te yàlla def tey boobu li ma waxoon tey loolu am quoi ma dem tey ba war a bëreeg moom. kon dama ciy sant yàlla bii mooy suñ premier grand combat xam nga di ci woo sama mbokk yëpp waaw waa Touba Toul xam nga wa Laañar waa Soal maa wa waa Jaamal waa Jama Ceew ñëpp Baye Sall xam nga ñoom Lamine Faye maa leen di woo ci ko ñu jàpp ci ñoom ñëpp bu baax a baax a baax xam nga ñu ne xale lañ ku Ronaldinho sax xooluñu ko ci kattan suñ borom buñ demee arène nationale dinañ mobiliser lu doy waate bu ñëwee ñu xam ne Konia ñoo naag lu bees tàq na Konia ñu bari dañ doon wax na d'habitude ñi nga daan bëreel ñii dañ la daan ëpp maas ñii dañ la daan xaw a mag ci làmb te yaa ngi doog am dëgg-dëgg sa morom boo xamante ne bu ngeen taxawee ñu xam ne combat bi combat bu jaadu la est-ce que dinañ gis vrai Konia bi ñu daan gis. incha allahu rabi Konia bu raw boobu ngeen di gis ci combat bi parce que combat bi ñun ñoo ko jëlaat suñu bopp. <coughs> yaa may sama ñëpp xam nga ñu waxtaan ci ba déggoo ci combat bi te combat bi ci kattan suñu borom ci la ñu xamee kan mooy Konia dëgg dëgg dëgg parce que xamaguñ ma sax walla ma xamaguñ ma xam nga damay ñëw doon ñamal gaay yi ñu naan ko mais bii dañuy xam vrai parce que dañ ne Ronaldinho dafa mën a bëre te man ku mën damay damay sawar xam nga làmb ba textaloo mooy ki nga xam ne bërewul xeexul deful mais ki nga xam ne day bëree bu ngeen bëree rek mu neex Ronaldinho ci kàttan suñu boro bu ñu bëree amateur yëpp nañ daar seen gémmiñ. lan nga gën a bëgg son combat xeex wala bëre. te ni ma la combat bi ma la su ma arrière sama tànk bu dégg mu ma jox sama sama li sama xaalis sama reliquat. arbitre bu soufflé arbitre bu moo ko fi bàyyi buy teggi loxo maa njëkk am su bëggee bëre day bëre su bëggee xeex day xeex man samay combat damay xeex damay bëre man loo bëgg di nga d'accord nga xeex man far force wala nga d'accord nga bëre man far force parce que man su ma ñëwee damay appliquer lépp damay xeex yow nga bëgg ñu bëri daje bëri nga bëgg ñu rocce ko xeex man noonu laay appliquer. dama gis ni euh, mystique bi euh, làmb ji ñëwagul mais ñi nga àndaloon ku ci nekk ñi gis naa ñu yor sengoor ñu yor ay butéel ñu yor dafa mel ni Kogna dafa pare mystiquement ci non instant lañ ñun déggoo ma ñun fi ñu dëkk yaa may dégg ñun dëkk ñun dañu naan demal def leen nii ñu def ko demal nii dem fii Abdou Galas Galas Diagne Seydou Oulaye yaa ma ne waa Cilla waa Jaamal waa Jama Ceewi yaa ma ne waa Kaarang Saalum ñëpp a ciy jàpp. foofu da nga fay dem. dëgg xale lañ suñ ginnaaw dafa yaatu. yàlla dimbali nañ ci côté boobu du dem foofu koo ñaan ak yow tam. ñu ne ay baa jiiri jiiri kolobaan baay jiiri tarkindaa gars yi yëpp a ciy jàpp parce foo mën a dugg bu combat bi da nga fay dugg parce que lan moo tax. man dama nekk xale yala dimbali ma tey ma a fël samay morom ñëpp naa koo ñaan kon duñ wëcc noonu kon suñ bopp. yee loolu rek mais tamit boo nekkee xale tey ku ne naa kooñaa kooñaa xam nga da ngay xam sa bopp tamit. parce que lamb daa am lu mu laaj te lu mu laaj ñun dañ koy def. keroog bi ngay génn arène nationale la nga fa jëlee ba ngay dem bi ñibbi euh, noo ko yëgee carrément noo ko xam ne ay dama doon reetaan. lu tax parce que man dama war woon daanu heure boobu loolu moo tax ma def ba daanu. non erreur bi ma def ba daanu combat bi maanaam làmb boo daan boo daanoo boo waxee rek di naan day saltel wala day def lii. mais yàlla xam nañ ñi ma xam nañu combat bi li nga préparé combat dem ba ci biir nga gaañu ci biir combat bi. Jamaïcain man ay ñoom Franc Papa Sow ñëpp woo ne ma bu combat bi yàqu. mais gars yi ma ne damay def médical pour combat bi du am man léegi sama moroomu ndaw la te waxante ne bàyyi ma dem kii dama koy daan mais yàlla xam ne boo jàmbaar bi ma koy yëleb di ko takk boobu damaa toog dama gaañu woon ci ndig wuli déew moom ma yóbbu ki ma fajal sama ndig wuli déew bu bawol une semaine combat ma gaañu blessé tubay sax mënu ma koo sol bu ma koy sol sama ndig day métti di géew bi ni ma doon pare ni ma doon def noonu yëpp di fecc di def noonu dama doon étiré wu parce que dama gaañu man xam naa li ne ci man gaañu naa ba pare te xam nga combat bi li ci laxasu ko wax quoi mais bésub dee moom bu ñëwee dama nga dee rek après nga xoolal li sa kanam parce que defet boobu li mu ngi defet bi jóge nañ jamono nañ combat boo xam ne est ce que gën bu baax combat bi ñu jógee spécial lañ bëri ci luñ jógee ci ci grand combat mbër bi ñu am ndax nit ñi xam nañ wala xamuñu ko ñëpp xam Ronaldo voilà boo xool combat bi ñu dal nii moo gën a baax sax bi ñu jógee kon ñu ne xale lañ lépp lu ñëw dañ ko delloo ci loxo yàlla xam ne yàlla loolu lañ séddee ñu jël loolu yee ñu ngi ay jullit lañ ay tur yu baax la ñu tuddee. Euh, gis nga bi ñu demee Mbour euh, ki nga xamante ni mooy Tony Junior yéen ñaar seen diggante lam la waxoon sànni na la ay xeer euh, loo koy boo ko yëgee boo ko yëgee noo def. Tony ay reetaan la ma jàpp c'est que Tony xam nga la ma jàpp man am compétition la ci man quoi parce que moom dama PV sax dama koy jël di waxtaan ak man ndax man dañoo war a bëre yow tapet nga affaire yooyu di wax bu ko ma koy reetaan dafa ko laaj yow wéroo yow ba nga bëri jël PV ci dañoo bëgg a bëri ay jaasi la jege ji nga envoyé ma ay jaasi. damay envoyé naa ba dama lay rey koo xam ne boo ko jëlee mu rey lu ma <laughs> la bàyyi ko muy wax rek Tony moom du ma sori ci boo xamante ne xam naa ne bëgg ko mais la parce que lamb ngi seen kanam. waaw lamb ngi seen kanam ci kanam quoi léegi tamit Tony si yoon mën ta def xaw ma trois combat xaw ma ay jam ay combat nee na moom la bëri arène xaw ma sept combat ma ne ko man li ma bëree Réfane bëree ko Touba Toul bëree ko bambay bëree ko Xombol yaa may dégg bëree ko Gaat bëree ko Diourbel man lépp su ko booleem bëri naa ay cinquante combats wala soixante te dugal ma ko sama palmarès dama ko rocc te neuf combats ren laa def. billaahi al bi damaa bëri ay ay combats nommé bu combat bëri dóor ba soon comme ay tabas lan tabaski yóbbu ay kar jóge sama dëkk dem bëri ji dëkk bëri dóor gannaaw combat xeex bëri daan dem bëri naa ci police lu dolli plus de cinquante combats sama dëkk li war foofu yëpp ay reefan réew maaw Touba Toul ay gaat ay Bambe ay Diourbel ay reefan fu ne faa bëree ay xombal te man yooyu dama ko sama palmarès moo tax ñoom bu ñuy am na combat yoo xam boo koy dugal si si ci li nga bëree man su ma dugaloon laalaale maa ngi ci ay soixante combats. te bëri na mbëri yoo xamante ne dañuy bëree combat. dañuy bëree fii nii ñoo xam ne du ma tudd seen tur dama leen daan dama leen jàpp foofu du ma leen daan leen ñoo tey fii ak fii bokkul hmm. tey su ngeen ñëwee ngeen def nii jarul wax ci média hmm. mais bari xam ñu ngi bëri fii toj am fu ma jaar ak ñoom bari na ci arène bi nag. bu baax a baax